يا ربنا صل صلاة تقبل بها الكتاب سا قبولا يسبل سترا جميلا ما حيا كل عيوب مع سلام دائم يدري القيوب حل النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وسسح يعمدا حل النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وسسح يعمدا بسم الله الرحمن الرحيم هذه أسماء الشور أورسني خير الكتاب الأكرم بفضله وانقاد نحو الكرم أدل الكتاب ساكرا له بما لقار عيسا سلالا سبما أنالني ما لم ينله خيري من قادني له بحسن خيري يقول للأكرم ما أشاء لأنه يفعل ما يشاء يحبد كل صلورا بالحركات وسكنات والجميع بركات أكرمني الكريم والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم أنا أنالني الله نوالا يغني فكنت ساكرا بنعم المغني أذكر حبدا قديما كسا بما يسرني ولست ناكسا توفيق توفيقه قد صصى شيطانا لخير ذاتي وحمل اوتانا يسوق من ليس له بقي ñu ngi ziar baax Mbacke. yéen la koy ziar baax nag. di ñaan nga yàgg ko wér. di ñaan nga yàgg fi loolu te ànd ko wér rek. li yéene liggéey sa maam sa waajur bu baax li nga yéene liggéey sa maam ak sa waajur bu baax wa. yàlla suñu borom bàyyi la fi te wéral la la fi suñu borom bàyyi te wéral la. nga defee ko nu kawe sa njort. yàlla na nga ko defee nu kawe sa njort rek. ànd koog murid yëpp ànd koog murid yëpp nag. jërëjëf Mbacke ah, loolu am am ziar la ila siwa nahwiya kulla man jaar هدى الذي لي جاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة يا مالكا بملكه أستغني من إقبالا سكري بنعم المغني رضي عني من له الداران فلسواي ينتحي الحاران إن قادت الحسنى إلى جهاتي صعب النفس بدر حاتي إن قادت الحسنى إلى جهاتي صحب النفس بدر حاتي حفظت بالله كتابه بلا توجه الدر النحو والبلاء murid yi bokk toog Cheikh Moussa Fall Falilou joxe ay kàddu yu bàyyi ko ci jëwriñam ji seex Falilou Fall bàyyi ko ci jëwriñu Cheikh Rafal ji nag jëm ci jëwriñu Serigne Cheikh Mbacke nee na kàddu yi du ñaar de waaye fii nag mënuñu fee ñàkk a wax kon jëwriñu Serigne Cheikh Mbacke ji di sëñ Abdourahmane nee na kii toog moo fi ñëwaale mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall gi muy kàddu yoo xam ne ku ko dégg danga nu ko nungul ñun ñi ko wax ndax kër gu fa sëñ Fallu dem moo fa njëkk a feeñ mooy taaw kër ga kon lu waay def ca googee kër Cheikh Fallu mii nga ko defal nee na ñii mu toogal sëriñ Daam Fall yéen ñii lan doon wax démb ban koy wax waaw nee daf leeroon ku yaakaar ne ci Cheikh Ibra Fall ku ne bisu tey jii war nga cee siyaare ji sëriñ Abdourahmane Mbacke mhm. ndax jëwriñu Cheikh Ibra Fall ji loolu démb sëñ bi la ko Cheikh Moussa saadoon wax démb booba sëñ Fallu mi la ko doon waxal ku yaakaar ne ci Cheikh Ibra Fall ku ne bisu tey jii war nga cee siyaare si jëwriñ jii di sëñ Abdourahmane Mbacke ngir Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke Fall mi fi nekk te nekkal fi Cheikh Ibra Fall jëmmam ji rek war naa tax ku nekk ñëw tey jii ba bëtam tege ci yow Mbacke bu ko defee lam wax bu dee dëgg ci moom la ko tax a jug dana dana dajeeg loola nee kon nag kii mu koy waxal fan demoon léegi jóge fa ñëw fi foofu waxuñu fa de ndax li sëriñ bi jiital laa bari te wax taxu koo jug siyaar rek ko tax a jug te yaa ngi jëndoog nag mbàkke li ci xol yi kon nag mbàkke ñun njabootu Cheikh Ibra Fall gi ci turu jëwriñ ji toog nga xam ni moom moo ko wax ci turu jëwriñam yëpp ci turu kilifaam yëpp ñoo ngi ñaan mbàkke sug dund yàlla gën a yàgg sëg wér gën a yàgg sag man it gën a yàgg sun borom rus nu ci yow ñun njabootu Cheikh Ibra Fall gépp loolu ñëpp la ko Cheikh Falilou Fall waxaaleel nee na dal gi ak yittewoo gi yëg gi ne ci yow nga xam ni sa cër yëpp a ngi dund nin ko mën a misaale ci yoon wi loolu yëg nañ ko ñun Baay Faal ñun ñi bëgg a baax ñoo bokk googu kàddu kon nag ci turu sëñ Falilou njabootu Cheikh Ibra Fall gépp kilifaam yëpp ñong lay ñaanal sun borom yok sa dundu gi yok sa wir gi ak sa man gi li nga bëgg sa Mbàkke yàlla na nga ko am lool rek la la seigne fadilu mëna ñaanal ak ñi mu àndal jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke. Eh, sëriñ Fadilou eh, Abdourahmane mi ngi leen di dello ab nuyo bi ngeen jaarale ci sëriñ mustapha mi mu joge ci di Fall mom sëñ Modou Mbenda. ak tamit njabootu Cheikh Ibra gépp ni ko sëñ Moustapha waxee nee na dégg na ko ni jàpp na ko ni wax ji itam nee na dara desu ci nam war a mel la mel te noonu it la daan mel naka jekk dara manqué wu ci lépp jot na sëñ bi nee na sant na leen bu baax a baax na ki taxawaay yi ngeen taxaw ndax euh, fa mag ña daan teg seen tànk rek fa ngeen teg seen tànk wàccu ko wàccu leen ko liñ leen bàyyee daal xam ngeen ko xam ngeen ñi leen ko bàyyee xam ngeen fi ñu bëgg ñu yobbu ko fa te yéen nga ca yoon wax te woor na ko ni da ngeen ag neena sant na bu bah baax gërëm na leen bu baaxa baax neena daal tànk yi moom euh, mi ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy borom kattan ci ji sëriñ bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal mu cheikhul xadim euh, lépp lu ngeen bëgg te di ko wut yàlla neen ko suñu borom yombalal waaw neena jumtukaay daal na am jumtukaay yu ngeen liggéeyee neena jamono ji ne mi ngi leen koy ñaanal ndax xam ne ne yéen seen dara génnul sëriñ bi lu ngeen amee ci sëñ bi rek lay dellu si kon nag na jumtu na jumtukaay yokku ba lépp lu sëriñ bi bëgg rek ngeen man ko dëgg la sax lépp lu ñu leen sant man ngeen ko waaye ngeen gën ko man nee na sa xolam sedd na xolam sedd na ci jotaay yi nga xam ne moom lay am ak yéen nee na du ci doyal nag waaw du ci doyal jërë jërë jërëjëf نفع لخير جهات الله الدرر بخير رد لي ولي يبقي الدرر أكرمني بخير مكر أو قرور وجعلني بكل شيء ببرور كتاب ربي قدى لي مخدا ولي ما يخجل فيه سودا ملكني الله ملكني الله تملك المليك وقاد لي ما لم يقدم للملوك طيب قلبي ونفسي والحياة من صان كل ساحيال وميا إكرام ذي الجلال والإكرام كفى حياة الكره كالحرام مست نوالا سين عن خير النبي علي تدليم مسفيت نبي مد لي الله المكرم الفلاح ومد لي نبي شيخ موسى Mbacke Cheikh Moussa Fall Falilou nee na sëñ Fallu mii di bëgg a wax yow daa ndax day am koo xam ni bu lee dundee lee dee day am foo xam ne boo ko fa jamee du ko yëg waaye yow nag Mbàkke si léppay dund moo tax nee ku la bëgg a jam te bañ nga yëg ko dana moytu ba tàyyi nee na fi ñu koy tàmbalee mooy liggéey boobee nga doon liggéeylu muy tool ya nga doon ruujlu dafa am kàddu gu sëñ Fallilu Fall mi waxoon jëme ko nag ci sa taalibe ba muy rakkam ja di doomi sëriñam muy sëriñ Seex Ndigal Fall mu ni ku sa yaakaar ne ci sëñ Modou Aminta Fall boo xëyee fekkal sëriñ Seex Fall ca tool ya ndax sa jëm ji Seex Moustapha nee moom mii di jëwriñam ba mu ñëwee ba fekk la fa ci turu sëñ Falilou jëwriñam nee na waxtu wam jug ca xare ba kon ne ko ne xam na ni yow mosoo wàcc guddi mosoo wàcc bëccëg ndax ñoo daje nag ca kër ga far ca boobu bëccëg na lool ci Moustapha al Karim bari na ñoo xam ne bu a xëy bëgg a xool ci xoolukaay yii xooluñu ko ngir dara lu dul bëgg faa gis sa jëm ji Cheikh Moustapha Al Karim ndax bis boo xëyee ànd nga ak waa waar wa loolu nag di bànneex boo xam ni murit yi ñoom doy na leen aw ñam doy na leen ak naan kon Cheikh Moustapha Mbacke sëñ Falilou Fall nee na li nga bëgg Cheikh Moustapha yal na nga ko am luñ ci nag loolu amuñu ko ab jaam daa mëntu weesu am la mu bëgg Mbacke kon ñaanal ñu Mbàkke jërëjëf nee na xolam seet na baax see Moustapha yal na leen yàlla dolli kartan te wéral leen dolli xéewal yi ba ba ngeen gën a mën a jekku ndigal ci daraje yonent bi daraje sëñ Touba ak seen daraje maam Cheikh Ibra Fall bisimilah na ñëpp nangu ñaan jërëjëf ñun Mbàkke nan la fekkaat at yu bari lool te lépp ànd ko wér ci suñuy xol lañ ko tibbee ci dina am. win Mbàkke win Mbàkke. وصلا نور ذاحري وباطن جميل كليتي إلي بالعثنى تميل فاصت حياتي بكتاب فرقا بيني وبين كل شخص مرقا سرعت بعش الجواره معا عن كل باطل وربي سمحا nasaa linnaafiu xarqal xaada wa kaana lil jamiilu bi saada xaada liyal baaxil mukarrimul karim takrimahu ma sururin laa yarim Seex Musaa nee na Sëriñ di turandoo yonent yàlla Ismaayla wii nee na jëwriñ di Sëriñ Falilu day bañ lore de nee bu ko neexoon bu jugee day jëm si fii fi yow rek yem ci yow waaye nag bu ko defoon dina lor ñu bari dina lorit lu bari ndax li nga doon ci moom yoon wi yëpp nag bokk nañ xam li sëñ Ismaïla doon ci sëñ falilu ne kon moom bu jugee rek nee day jugal boppam waaye nag noppal na kër yépp nag nee lépp ci njaboot gi bu yónnee woon ca jugul nee duñ jëm ci bis bi dara danay jortu ni lépp moo leen ko war a defal te def na ko waaye fekk na lool sax njuumte la nee ñun ñii nag ñun la lépp bis bi war ci suñ diggante ak yow tànk yii sëñ bi jug di ko dox nee doy na suñ ndam ñun ñi ànd waaye warlul ko ci dara nag loo yaakaar ni moo ko war a def moom loolu ak xamadi rek la ndax bëgg gi moom ñëpp a ko def waaye day am ñu bëgg lool ca xamuñu bu jugoon jëm si fii fi yow bàyyi ña nga xam ni yaa ñoom yéen a bokk sëriñ bi nam ko defee lan dul xam ñoom ñenn ña nga xam ni danoo gis mu jug rek la ko tax a jug lan dul xam limu doon ci yow loola moom sëñ Ismaïla moom nga doon ci ku doon ci bis bi dara rek kon bu jëfee ak yow bu waxee ak yow bu defee ak yow loolu mbàkke doyoon na ci ñu amu xam waaye ñu xamul nag danañ ci jot sax di leen lor waxuma laa di ko def moo tax nag jug gi mu jug jaar fa ña nga xam ni yaa leen def sëñ Ismaïla ñuy sa kilifa lan doon rek ci yoon wii loolu rekk nga doon yow it de am na cër yoo xam nag la nga doon faw xanaa ñoom lan doon ndax yow day da ngaa boole yaar yaar nag moom lu ca waay mën a am gañe nga ka ca am benn nyentim di len caw ay yar ka am ben gën a ka am ñaar te yoon wi nak seigne Ismaïla dañ ci am ñaari cër ñaar yi tax ñu naan yoon wi fu ci nek dang fa seddu muy kër Serigne Touba ak kër Cheikh Ibra Fall kër go deg nak ci ñaari kër yi la tabbi waye ñaari kër yoy rek la kon nak sëñ Fallou mi toog di jëwriñ ñu bare bari dafa indaale nag kàdduy kilifaam yëpp bi muy jug ca Mbàkke àndoon ak Serigne Saliou Fall ñu koy wax Serigne Saliou Fat Saw ak Serigne Cheikh Mbacke Fall ñu naan ko Serigne Cheikh Assou Ndiaye waaye ban siyaare sa jëwriñ ja muy Serigne Ahmadou ba noppi ñu jox ko ndigalul demal àggaleel ñu yi fi des muy fii ñu jaaragul yooyu yëpp nag yow mii lañ ko defal ndax boo sañoon jëwriñi kër gi nga nekk bisub tey bii ku nekk sa bët dina tege ci ñoom waaye nag ñu bari defal na la loolu sëñ Ismaïla nee loolu ñu bari defal na la ko Mbàkke kon sëñ Falil nee na mi ngi lay siyaare ci bis bi bis bu tedd bii di ci ñaan yàlla nag sunu boroom yaakaar naa ñëw ba agsi fii moom waaw léegi mu ay yoon de waa léegi tey mu ay yoon de waaye yàlla na gën a yàgg rek waaye yàlla na gën a bari nag sëñ Ismaïla ñaanal lool sa barke waajur wi yàlla na sëñ Fallu yàgg ñëw ànd ñun ñu fekk la fi nag Mbàkke jàmm ji gën a bari lool nag xéwal yi gën a bari man-man yi gën a bari wér gi dolli ko ak fan yi lool nag ne moom de xam nga li ko war rek jénn jëmm ñu ni ko lu nekk yaa koy def wala nga def lu ko lu nekk yaa koy wax walla nga wax lu ko tamit as gor ba noppi nag wëlbati ku gore moom sëñ Fallu kooku Mbàkke moom faw dina sonn sëñ Ismaila waaye coono boo xam nag benn coono la rek lu as gor néew néew ngor war na ko mën muñ kon nak ne ñi nga ñaan yalla suñu borom yalla nga yàgg taxawee bis bi Mbàkke ne ñi taxawee bis bi yalla nga ci yàgg bokkon yow ta and ko wër ak jamm ci daraje yi sa wajuru tedd wa daraje Cheikh Mamadou Falilou daraje Serigne mourou Sa ak Serigne Touba Cheikh Rofal daraje ki tax ñu bind lepp nak muy salaahu taala alayhi wa salaam jërëjëf Fati Fall jërëjëf Mbacke kon kàddu yaa ngoog sëñ fi ne bu jógee fii fi yow day bëgg a jaar fa sa mbokk mais ñu koy wax Serigne Cheikh Ndigal fi ne moom ma nga yëndoo rek bëgg ku fa jaar te yooyu yëpp moo ko warlu de kon nag Mbacke ñu ngi koy sàkkul ak ñaan ndax ku liy ñaanlul ku nekk. dan la caa boole waaye moom mi la ñuy ñaanlul yàlla na gën a yàgg lool ànd ko njabootam gu baax gii yàlla na gën a wér lool yàlla na gën a man lool bun sañoon lu nekk moo koy man ca di ko defal boppam waaye kenn du ko defal dara kon da man lépp mbàkk ca di ko def ñaanal la sëñ Falilu loolu ne su ñaan gi yàlla na am ci daraje bis bi ak borom jërëjëf Mbacke liman xamaani bil jamal wa bi saadati bi awsi xayra maal radiya xanni man raditu anu wa kaana li bi mastafartu minu lam yanu saytaan wala munaafiqu ilaya fi sayin wa suuqi naafiqu suuqiya fihi rabu wassalaamu wa li ayaati nuura wal falaamu سوقي في عرب والصلاة ولعيات النور والفلاة أكرمني الباقي بلا تدراج ومن وسط أعجل القراج أكرمني الباقي بلا تدراج ومن وسط أبدل القراج سعادتي تسوق كل فاجر لخير در سالما من ساجر فر لخير جهة الأعداء ولسوى جسمي ما لداه يسوق ما به يجيء القدر لخير ذات المالك المقتدر وجهت وجهي للإله القائر وباتني تحر لي وظاهري دحاني الجميل لسكوري ولم يصل برابي